ñëpp toog ci suuf sëñ Fallou ñëpp ne ko na nga xam ni kat waxtu woo lu nekk ci sa xel nga bëgg koo ñaan dana dëppoog sama amiin loolee ci suñu kanam la te ren ku gis liggéey bii xam ni yokku na Mbàkke taalibe yaa ngi nii sëriñ baa ngi nii ñeen fukki xar la ñu waajal boole kook ay naanu boole kook ay meññeenteef yoo xamee ni dàkk ci dara bëgg ci dara lu dul nga ñaanal ñu ñuy sax ci liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye jaare ko ci sëñ Aydara Mbàkke ndax Mbàkke kii jëmm la joo day dundal yoon wi waaye sëñ Aydara dundeewul yoon wi leen rek mooy yitteem muy sëg bëgg amul kenn yaakaarul kenn xoolul kenn ku dul day ñaan suñu borom yàggal la fi loolu te la sëg bëgg rek lay dàkk sëg bëgg rek lay dàkk waaye ñun ñii taxaw tamit day taalibeem ñun ñii day taalibeem sëriñ bi loo ñu nar a ñaanal boole ko ñaanal ñu ko sëñ Aydara yàgg fi te fi yàgg te wér sëñ Aydara Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér jëf loolu moo nekkoon. Muxaddamatul Xidma ñaar fukk ak juróom-ñeent bax baxa téeméer ak ñaar fukk. waaw waaw baax na waaw isnul jàng nañ ci téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom nooru daara ni fukk ak juróom benn wala xadd karam naa تيمير اك جوروم بن فوك اك نيت باخنا واو واو دا فنا جيخو سي ري باخنا باخنا فرج اك ربي الله نكون اك نجيني نو داف سي 120000 120000 11 استغفر الله موم داف نانجي مليون اك لو توك toxfatu def nañ ci juróom-ñaar euh, euh, faydu bi ak doa def nañ ci deux mille six cent soixante quinze ayatul kursi yu quarante quatre mhm. matlabul fawseyni def nañ ci cent cinquante quatre yi def nañ ci vingt huit xaatimatul munaajaati def nañ ci cent soixante def nañ ci ñaar min allah min kulli karimin trois cent quarante et un asmau daaru salaam def nañ ci ñaar lay laay lala sikkar nañ ci lu toll ci ñetti miliyoŋ ak ak ñetti junni ak lu topp ñetti million ñetti junni ak lu topp astax euh, salaatu ala nabi def nañ ci million ak ñetti téeméer ak lu topp subhanallah astaxfirullah def nañ ci quarante euh, def nañ ci euh, huit cent quarante et un mille cent quarante quatre subhanallah def nañ ci soixante huit mille allahu akbar def nañ ci vingt huit mille trois cent cinquante quatre yaa kaafi def nañ ci 38 885 allahu def nañ ci 48 329 bisimilahi rahmaani rahim def nañ ci moom it 11 millions 900 lu teg alhamdulilah ñu def 60 000 lii lépp nag ñu ne ñu ngi la ciy ñaanal nga yàgg fi lool te wér te lépp loo song ci liggéey Cheikh Ibra Faty bi yàlla mottali ko ba nga am ko nu kawe sa njortu yàgg lool waaw waaw waaw. Sénégal ñu ngi dégg ay accident boo xam ne nit daane wala boo xam ne bu yàq matériel ya loolu lépp boo ko gis alhamdulilah buñ ko defee lenn lenn lu dul jàmm rek de lu mën a am fii est-ce que jàmm rek du am nee na lii nee na ko loolu leen bi mu ne colonel ñëw na fi ne gisagul benn dégât wala lenn yàqu benn yàqu-yàqu. benn dégât boo xam ne nit kaal na lenn déggaguñ fi weñ bu yàqu wala nit bu fi gaañu ci lenn. te mu ne lim yi lim yi ñu def. yi ñu def. ak ñaanam yi nga xam moom lay ñaan. nee na loolu dong mën na loolu mën na lu ko ëpp. jërëjëf waaw waaw. taalibe yi. loolu mën na loolu aar lu réew mi. aar lu dul lépp nag ci barkeem rek. waaye lépp ci barkeem sëñ Abbas Mbacke la Mbacke ñaan yàlla nga fi yàgg tëwër yàlla nga fi yàgg tëwër yàlla nga fi yàgg tëwër. màggal gu mel nii musuñu koo màggal noonu. <laughs> ci ci wàllu yokkute. ci wàllu xéewal. ak ak ci jàppandi gu biir yi di jàppandi. màggal gu mel doog a màggal ren. xam nga ne kanam bi alhamdulilah. sëñ Aïdara daf koo ni màggal gu mel nii musuñu koo màggal ak yokkute ak jëm ci kanam sëñ a nee na kanam rek la jëm nee kanam rek la jëm. nag kan? kan? ini ci boole tamit ma nga ca kër ga mbooloo mi ko ñoo ko bàyyi ba yàgg am ñu ko jiital indi ko ñaan nga yàgg ci wér ñu mandal ci wér bi tamit toog yi doon tam borom daal ba ñoom ko doon dama ne ngeen bi ñaanal na gi na gi na na indi bi jërëjëf Mbacke. kon ñu daal di tàllal loxo sëriñ bi ñaan sëriñ bi nee na kanam rek la jëm kanam rek la jëm fas leen soxla yeeg aajo yi amin amin